li ñuy ñaxtu lenn rek la ki nga xam ne moom mooy directeur u école primaire bi dafa jël suñuy doom tiital leen di leen xoqatal te li nga xam ne 7 h 25 moom la bëgg xale yi di jàng ci école bi te ñun ñëpp xam nañ 8 h la xale yi war a jàng si léegi ku jàng siwul 7 h 25 day taxaw ci bunt bi yore cravache am di la dóor loolu nag moom la population bi naxarlu ñu ne. ñun buggatuñu am directeur bu mel noonu li ñu bëgg mooy ñu jëlee ko fi indil ñu beneen directeur boo xam ne suñu gone yi dinañ mën a jàng jàng bu wóor am qualité. waaw tànk yi ñu ci dox dem nañ fépp foo xam ne jàpp nañ ne ñii ay kilifa lañ yoo xam ne war nañ mën a saafara mbir mi lu ci mel ni monsieur le maire bu suñu commune bi muy Mamadou Mansour Thiandoum dem nañ ci moom nee na ànd nañu ak ñun ci xeex bi dem nañ ci ki nga xam ne tamit moom mooy inspecteur bi nga xam ne moo fi yebal. Abdoul Wahab Diallo muy inspecteur Sakho bu Mbour 1 dem nañ ci sous préfet aussi ñom ñaari eh, kilifa yoy dañ ñu né dinañ fi jëlé waji waye xamaguñu kañ té ñun nak xaar bi ci bopam ci lañ mar motax ñu né dañuy passer à la deuxième étape pour si suñu xex bi. lool moy deuxième étape bi dañ ne bu saafara amul dañuy jéem fexé ba retenir téye suñuy doom ci suñu kër yi ay fan pour le moment liñu japp moy ñaari fan lañ décrété won démb ak tey te démb ak tey xale yi kenn jànguñu à part doomu directeur kenn demul école te démb waroon nañ def sax sitting waaye préfet moo ko tere ñun ñu ne duñ ko def ñu ne tey nag dañuy def li ñuy wax point de presse wax ak presse bi ñu tasaare message bi ci àdduna bi ñëpp yëg ni Popenguine séeréer am nañ naxar suñu sañoon kenn du gaañu duñ dóor kenn pour ñu régler problème bi moo tax ñu jiital ay négociation mais loolu yëpp bu saafarawul dañuy jàll ci étape bi gën a metti muy maanaam téye suñuy doom définitivement ñu dem école ba keroog mbir mi di am saafara bu bu itam euh, parents yi nga xam ne ñoom lañ doon dóor seen doom yi nee nañ dinañ yóbbu mbir mi ci yoon parce que am nañ ay preuve yu leer yu li wóor ne directeur bi da doon dóor xale yi te loolu buñ ko ci yóbboo rek mooy tëj nañ directeur